ci ay wërsëgam yu yaatu te bëri ñaan yàlla yàlla saxal ko te may ñu kàttanu sant ko bi jaay rasulillahi salallahu alayhi wa sallam ñu ngi baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq ñaan yàlla boole ñu baal may ñu fekkee ko ay ati at ci julli gi ñu génn ñi demoon aji itam yàlla nangul leen seen aji te yonent wax ni alxajjul mabruk laysa lahu jazaun illa janna aj bu nangu daal aljanna mooy fayam yàlla na yàlla nangul ujjaaj ji seen aj ñi ajul itam yàlla nangul leen seen tabaski ak seen jaamu yàlla yépp baal ñu rëcc rëcc yépp ci barki yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu war a ñëw tey ci bunt buy jàngale ci téere bi bunt bi nga xam ne dafay jàngale yéene nit ki jàng ban yéene la war am ci jamono yi muy jàng ndax jëloon nañu buntu lan mooy xam-xam ak lenn ci ngëneelam ba mu waxoon la sax waqad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa axbaarun saxiixatun mashhuratun mu ne am na ay aay yu bari yu rot ci ngëneel xam-xam ak ay ahadis yu wér yoo xam ne yu siiw la itam yu nit ñi xam yoo xam ne soxlool ñu koy tudd sax lam nastaxil bi zikriha soxla ñu koy tudd kay laaya poola alkitaab ngir ñu bañ téere bu gudd lool page yu bëri foofu la ñu woon ci dars bi passé foog naa ci septième dars suma juumul wala ci huitième dars bi septième bi ñu war a tàmbalee tey buntu bi wax faslun fii niyatil fii niyati xaal biy jàngale yéen ak bi nit ki war a làmboo ci jamono mi muy jàng muy bunt bu am a am solo bunt bu am solo lool sax ngir dénkaanim ci dénk ak waxu boroom xam mi nga xam ne mu ngi ko ci indi ku mel nii Abu Xanifata ku mel ni boroom xam yu bari mu indi ay wax mu ne summa la budda lahu mina niyati fi zamani xaalu ta fi ilmi mu ne summa la budda munta ñàkk mukk nag laxoo ci nit ki nga xam ne dafay jàng mina niyati mu làmboo ak yéene gu sell fi zamani taallumil ilmi ci jamono yi muy jàng xam-xam loolu nag daf ko wax nii rek parce que ci xam-xam lay wax moo tax waaye loolu lépp lu nit di def rek dafay soxlawoo nit ki am ci yéene ndax dañuy wax ni jaamu yàlla ak jëfi aada yu ci gën a bëri yéene rek moo leen teqat la xam nga nit tey jii bu ñëwoon di wër benn xeer wër-wër dañ naan kii dafa dof wala dafay sport wala lan moo ko dal waaye bu fekkee ne leer nit ñi dafay tawaaf day wër kaaba gi wala dafay daw saf ak marwa su boobaa ma kenn du ko jàppee dof dañ koy jàppee eh macha allah kii moom mu ngi jaamu yàlla. parce que lan yéene bi moo tax yu bari daal liy teqatle aada bi yàlla bi ak ibaada bi mooy yéene moo mu ne li mu la wax ci ginnaaw yépp nag ginnaaw loolu ma wax yépp laa budda lahu ci nit ki mina niyati mu am yéene bu sell fii zamani ci jamono muy jàng xam yéen wax ne innamal a'maalu ndax moom yéene kat nag hiya yéene boobu muy wax ni al aslu fi jamil axwaali moom mooy cosaan ci mboole mbir yi gaar doomi aadama li koy teqatle mu nekk aada ak ibaada mooy jaamu yàlla mooy yéene li koy teqatle mu nekk ngistal ak jaamu yàlla yéene la yooyu yëpp ci yéene lay aju moo tax mu ne xiyal aslu fi jamil axwaali yéene kat mooy cosaan bi tax yàlla nangu jëfi ci mboole mbir yépp li qawlihi sal li qawlihi alayhi salaatu wasalaam ngir wax yontu bi sallallahu alayhi bi wax ni innamal amalu binniyaati jëf yépp mu ngi aju ci yéene yi xadisun saxiixun te lii nag xadis bu wér la moom la buxaari yi njëkk euh, ubbee ci saxiixam mooy innamal amalu binniyaati bal téere yu bari sax mu ne ba tey moom borom téere bi wan rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jëlee nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne kam min amalin bëriwaan na jëf joo xam ne yu tasawwaru bi suwaratin bi suwarati amali dunia dañ koy xoolee bëti jëfi àddina bëri na jëf yoo xam ne soo gisee ni gisu jëfi àdduna nga koy teg wala zahir bi jëfi àddina lay tegtale waaye seeru bi husni niyati min amalil axirati jëf jooju nag nga xam ne zahir bi nii jëfi àddina la mujjee dem nag waaye séeru bi husni niyati mu dem ngir yéene bi rafet bi nit ki am ci loolu min amalil axirati mu mujjee bokk ci jëfi àllaaxira yi jëfi àllaaxira buñ ko waxee mooy jëf joo xam ne dañ ci fàggoo yiw ak mën de yàlla boo xam ne mun na la muccal ci safara te jural la aljanna misaal bi ñu jël ci loolu mooy nit koo xam ne dafay xëy di uti xaalis nga utum xaalis moom daanaka jëfi àddina lay lay joxe ci zahir bi waaye bu fekkee yow bi xëy yaa ngi ci yéene man kat damay dem fàggu ji lu lew ngir mun a dund dundal sama njaboot ba duñ def lu xaraam duñu dégg ci lu xaraam pour dund man tamit du ma dugg ci lu xaraam pour dund wala damay fàggu alal pour dimbali jullit ñi wala fàggu alal pour dindi ñàkk ci biir jullit ñi yooyu noonu yëpp xëy liggéey jëfi zahir la ci àdduna ci bët nit ñi waaye nag yéene nit ki mën na dem ba soppi ko jaamu yàlla naka noonu itam lekk nit ki di lekk waaye nag paa lekk comme séeréer ni ñuy lekkee nga xam ne séeréer moom dafay lekk comme ku waaw dañu lekk rek waaye nit ki xëy di lekk ngir yéene ci di ah damay lekk kat pour am kàttan pour mën a jaamu yàlla walla damay lekk kat ngir sant yàlla ci lekk gu dagan yooyu noonu yëpp jëfi zahir bi bi nit ñi gis jëfi àddina la waaye nag yéene bi moo koy mujjee def jaamu yàlla moom lay wax ni mu ne jëlee nañ ci bi sallallahu alayhi wa kan min amalin tasawwaru bihi eh, bi suurati amali dunia bëri na jëf yoo xam ne danga koy gis nii ci bët mu am melokaani jëfi àddina waaye yasiru bi husni niyati mujjee dem ba nekk ci ngir yéene bu rafet bi ñu di am min amalil axirati bokk ci jëfi noonu itam amalin bëriwaat na jëf wala bëri na jëf yoo xam ne wala bëri na jëf yoo xam ne yu tasawaru bi suurati amaalil axira da mel ni maanaam dañu feeñoo feeñ waay jëfi àllaaxira dañ leen di gis jàpp ay jëfi àllaaxira la jëfi jaamu yàlla la waaye summa yasiru min amali dunia bi suu i niyati yéene ju bon ji nit ki di am dafay mujjee dem ba mujjee nekk jëfi àdduna rek du mu nekk mujjee du nekk jëfi jaamu yàlla masalan nit kuy julli moom li mu ci bëgg rek mooy ñu ne xëy diw jullikat la kooku mu ngi jëf jëf joo xam ne zahir bi day jaamu yàlla la waaye nag baatin bi dara nekku fa ndax yàlla soxlul ngis tal wala nit kuy jàng di neexal baat moom li ci jublu rek ñu ne loolu rek la ci jublu su boobaa zahiru jëf ji day jaamu yàlla la mooy jàng waaye baatin bi moom daara nekku fa naka noonu itam ngay dem ci jotaay yiw yi moo xam jullee mbooloo moo xam dayra euh, moo xam jotaay ñi jànge alquran moo xam jotaay ñi jànge xam-xam euh, bu dee tijaan moo xam xadara moo xam ak lu mënta doon daal ziyaar lu xew rek ci jëf yu baax yi jotaayu jaamu yàlla yi jotaayu jaamu yàlla yépp yow yaa ngi fay teew waaye sa yéene maanaam li la fay yóbbu rek mooy ñu ne diw jàmbaar la hey diw du duy rate kii yooyu bi day jaam yàlla la de ñu ngi ne diw moom jàmbaar la nag jaam waaye nag xaqiqatan dara nekku fa ci caaxaan nga nekk parce que yàlla soxla loolu baañas mu ngi koy wax yaatal ci yaatal bu am solo waay ci yéene ci ni ngay jaamoo yàlla mbokk loolu dafa am solo yàlla nan yàlla may yéene bu sell bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ndax am na sax am na asar bu ñuy nettali nii seytaane dinay tijjil eh, dama xamatul Mujaahid moo ko waxoon wala Sufyaanu Thawri jàppatum tur bi daal waaye dafay wax ni daal ni seytaane dina tijjil nit juróom fukk eh, maanaam quatre bunt yu baax ngir bu ko ci benn bunt bu bon rek mooy mu xiirtal ko bu mën a julli lool mën a jaam yàlla lool waaye nag loolu yóbbee ko ngistal xam nga yéenam yàq na jëfam yépp motax tax lu am solo la wax ji dal wax ji am solo la yent bi mu ne kam min amalin tasawwaru bi surati amali amali dunya way siru bi husni niyyati min amali axira bëri waan na jëf yo xamne dañu feño dañu dañ leen di xolé dañu melni ni bët jëfi àddina ci zahir way nak yéene bu rafet bi ci nit ki am da fay mujjé nek jaam yàlla waye nonu itam la amé wa kam min amali tusawwaru bi surati amali al-akhirah bari na jëf yoo xam ne dafay feeñe jëfi jaamu yàlla waaye nag su may séeru mi amaali duniya mu mujjee nekk jëfi àddina kese bi su inniyati ngir yéene bu bon bi ci nit ki am gis teel déggatu rëy bëgg ñu tagg la yàlla nañ ci yàlla musal mu ne wa yan bari yi an yan wiya yàlla na ci nit ki buy jàng mu yéene al mutaallimu kiy jàng dafa yella ci moom buy jàng lan lay yéene bi talabil ilmi wa yanbaghi an yanwiya al mutaallim na ci nit ki nga xam ne dafay jàng mu yéene bi talabil ilmi ci sàkku xam-xam muy def nit kuy jàng lan la war yéene ci buy jàng mondi ci yenn rek mu ne de daal ci yéene sàkku ngër mën yàlla tabaraka ngir aaya yi digle jàng ak ahadis yi digle jàng mu yéene damay def lii ngir sàkku ngër mën yàlla parce que moo ko digle mun naa ko def ngir topp ndigalam muy benn lool benn la ci nit ki war a yéene jàng ngir sàkku ngërmande yàlla tabaaraka wa taala ngir ne yàlla def ko digle yenent bi digle ko nit ñu baax ñam digle ko nga jëfee ndigal boobu ngir am ci ngërmande yàlla ba nit ñi de ngërmande yàlla tabaaraka wa kon nit ki wa yanbaghi an yanwiya al mutaallimu bi talabil ilmi war na ci nit ki jàng buy jàng muy yéene li daa allaahi am ngërmande yàlla ci loolu muy jàng wa daaral axirati ak payub àdduna euh, payub àllaaxira yàlla gërëm ko ci yaani xam-xamam bi musal ko ci safara yóbbu ko ci ngërmande mën wa yàlla wa izalatal jahli an nafsihi mu yéene waale ci itam jëleeg réer ci boppam maanaam dàqal boppam réer réer mu fexe mu jóge ci moom yooyu itam nit ki mun am na en war na yéene loolu man kat damay jàng benn ngir sàkk ngër de yàlla waaye itam ngir denc réer effacel boppam lu ñu tuddee réer mbalaanu ko réer mu fexe simil ko boppam ndax Baay dafay wax ni mu ne euh, lu mel ni ñàkk ak euh, bekkoor ak réer même bu ko nit ki defee boo ko waxee dafay mer waaye lu mel ni am am xam-xam mu ne lu ko nit ñàkk-ñàkk boo ko boo ko nee am nga ko daf koy neex moo lay woon màggaayu xam-xam ak torox tànge ñàkk xam ndax tabisaratul anaam Baay ñaareel am na bunt waa ñaareel bunt foog naa wala ñetteel bi def ciy jàngale ngéneel xam-xam ba pare di ŋàññi réer kon réer yàlla nañ ci yàlla musal nit lu mu réer réer boo ko nee xamoo dara rek mu mer lu mu lu mu lu mu xam-xam-xam itam soo ko nee danga réer mu mer waaye lu mu ñàkk xam ñàkk xam ñàkk xam boo ko nee dangaa réer mu mer lu mu ñàkk xam ñàkk xam boo ko nee dangaa xam mu kontaan kon mooy xam lu lu war la ci nit ki moo tax mu ne nit ki buy yéene war na ci sàkku ngërmande yàlla te ala wa daaral axirati ak kërëk mucc ci àllaaxira wa izalatil jahli an nafsihi mu dàqal boppam itam ak réer fexe génn ci réer wa an saairil juhaali mu fexe itam dàqal ñeneen ñëpp ak réer ñi nga xam ne dañoo réer nga fexe itam jëlee leen ci réer googu indi leen ci xam wa ihya wa ihya ad diini ak dundal diine wax naa gum ñeent mën de yàlla maanaam yéene nit ko war a làmboo buy jàng bokk na ci mu sàkk ngërmande yàlla jublu ci sàkk jublu ci am ngërmande yàlla waaye itam fexe génn ci réer fexe itam am mucc ci àllaaxira fexe itam dàqal ñeneen ñëpp ak riir képp ku riir rekk mu fexe génne la ci réer googu indi la ci xam waaye itam dundal diine waaw buy sàkku xam-xam na ngir dundal diine mhm. wa al islaami ak itam fexe desal lislaam maanaam fexe lislaam sax loolu itam bokk ci nit ki yéene mu am hmm, buy jàng ne ah man kat maa ngi jàng ngir samp lislaam ngir liggéeyal lislaam ngir xidmaan lislaam bàyyi tudde na boppam xaadimul ilmi ci ci tabsiratul mu ne mooy mbindaandu xam-xam bàyyi na si noonu tuddee boppam ne moom mooy mbindaandu xam-xam radiyallahu anhu kon nit ki itam buy jàng war na yéene ah man kat maa ngi jàng ngir lislaam des ci kaw suuf mu ne fa inna baqa al islaami bil ilmi ndax kat nag lii dëgg ba dëgg desug lislaam kat mu ngi aju ci xam-xam fa inna baqa al islaami bil xam lislaam mu ngi ci xam-xam xam bu desee lislaam des bu xam-xam raafee lislaam raaf loolu nag lu yomb expliqué la alquran bu ko kenn jàngutut ba kenn xamutu ko lislaam raaf na ahadis yu yonent bi boo kenn jàngatul kenn xamatu ko lislaam raaf na jàngale mag ñu baax ñi boo kenn jàngatul kenn xamatu ko lislaam na parce que noonu la lislaam accès ci nit ñi yàlla moo wax yu ay yonentam yonent yooyu di wax ak seeni peuple popula peuple boobu di jokkonte maam ak doom ak sët ak sëtaati sët lislaam bi di continuer ba tey masalan alquran yàlla moo ko wàccee jox ko jibril jibril wax ko yontu bi sallallahu alayhi wasallam yontu bi wax ko saxaaba yi saxaaba yi wax ko taabiina yi taabiina wax ko atbaawu taabiin atbaawu taabiin wax ko ñi ñëw seen ginnaaw ñooñu wax ko ñi ñëw seen ginnaaw ba ñun ñu jot ahadis yontu bi itam noonu la yontu bi moo jëf mbala mu wax wala ni def dara mu saxal ko saxaaba yi tuxal ko ci taabiina yi taabiina yi tuxal ko ci atbaawu taabiina yi atbaawu taabiin tuxal ko ci ñi ñëw seen ginnaaw ba ñun ñu jot kon nag bu fekkee yow dem nga ba négligé xam-xam rek mooy yow négligé nga lislaam ndax bu fi xam-xam jugee lislaam jóge fi loolu la borom téere bi di wax boo jàngul xadis yi jàngoo fiq jàngoo alquran mais loolu yëpp bu raafee mooy lislaam raaf na rek loolu la lay wax ni kat war nga xam yow nit ki fa na baqaal islaam desug lislaam bil ilmi mu ngi aju ci xam-xam boroom xam-xam yi tey jëfee seen xam-xam nag ñoo fi téye lislaam ba léegi hmm. ndax bu ñëpp nekkoon ay jaaxil su boobaa ñun kon bàyyi nañu jàmm yàlla waaye ñu ngi jàmm suñu xel ndax nu ko suñu xel nangoo rek ñu defee ko noonu buñ demee yowmal qiyaama yàlla ne waaye yéen lii ngeen def ku leen ko sant man sant ma leen ko de man li ma leen santoon kay bàyyi ngeen ko bu yàgg yéen ngi ci leneen su boobaa ñëppay perte moo tax desug lislaam mu ngi aju ci xam-xam ndaw ñi maa ngi koy njëkkee ci sama bopp nag yàlla na yàlla xiirtal ci sàkku xam te itam am ci yéene bu rafet bañ ci am yéene ngistal wala déggatu walla yaay jàmbaar ak yu demee noonu yàlla na yàlla mosul ci yooyu yëpp te sellal lañu suñu yéene te itam may ñu cawat ak jàng ndax jàng dafa metti ku teyal ba mel ni man du ko def te itam du paase nag jàng du wees de jàng du wees boom përëm téere bi mu ne wala yasixu zuhdu muy wax du amaat solo wala yasixu du dëddu àdduna de munta wér wat takkuwa ak ragal yàlla ma al jahli ànd ak réer subhanallah mu ne walaa ya sixu du wér ak zuhdu dëddu ñu naan hee diw ak dëddu àdduna diw rawatina ñun ci sufiyanke ñun loolu dañ ko dañ ko ñeme loolu noonu diw sufiyanke pire la diw dafa dëddu àdduna borom téere bi mu ne dëddu àdduna boobu day wat taqwa ak ragal yàlla maanaam ñu ne diw dafa dëddu àdduna wala diw dafa ragal yàlla waaye nag jaaxil la loolu dina doy waar de mhm. mun na nekk nag waaye nag yombut de li tax ma ne mun na nekk parce que yàlla mun na lu ne waaye nag dëddu àdduna boo boo nekkee jaahil yow selon ni nga comprendre nga koy defee te amaana li ngay def noonu lislaam bañ la waaw ragal yàlla itam boo jàngul xam lan mooy ragal yàlla mën nga jàpp dara mooy ragal yàlla fekk loolu ñeme yàlla la mhm. loolu moom waaw ku ko weddi rek na jël na nit maanaam nit ku nekk mbuur jël yoonu dakaar ba pare na moom Kaolack la bëgg a àgg dinañ ne diw bëgg na dem dakaar la waaye jëlul yoon bi de kooku nag du mu a àgg Dakar lu mu bëgg bëgg àgg dakaar ñu ne noo diw dafa farlu fajar la yeewu takk bagage am sax dafa am yitte gis nga loo am yitte farlu boo tegul ci yoon bi du àgg mukk fa nga jëm noonu la moo tax mu ne walaay sixu zuhdu te suñ jamono ji dafa bëri diw dafa dëddu àdduna dëddu àdduna dafay ànd ak xam dafay ànd ak xam-xam wa ragal yàlla itam ci xam-xam lay aju waaw walaay sixu zuhdu dëddu àdduna de munta nekk du wér wa taqwa ak li ñuy wax ragal yàlla ma al jaxli ànd ak ba am solo la xam na lu ñàkk ñu utal ko dar sa àpart allah mu ne anchada nii al ustaz al cheikh al imam al ajal burhanu diin saahibul hidaya li baadihim mun day sadd na ma ay bayt yaani wax na ma ay abiyaat yoo xam ne woy la al ustaz al cheikhu ki nga xam ne ustaz sëriñ la al imam tey imam al jàllu ku màgg burhaanu diin muy layeg lislaam layeg diine saahibul hidaaya mooy borom ak hidaaya yaa xaw ma téeram la wala li baadihim ci lenn ci mu wax mu ne fasaadun kabirun lii de yàqute bu mag la aalimun borom xamam boo xam ne mutaxattikun borom xamam xam bu ñemee fësal lu bon koo xam ne xam na de ñu ne diw boroom xam-xam la waaye nag moom pour mu def lu bon ci mbedd mi daf ko yomb lool wala muy oyfal lu oyful walla muy diisal lu diisut loolu lu lu bon la ci boroom xam-xam mhm. mu ne fasaadun kabirun boroom yàqute gu mu mag yàqute bu mag boobu lan la mooy aalimun mutaxattikun boroom xam-xam boo xam ne boroom xam-xam la waaye dafa ñemee def naka sa dul noonu te sax des fois du ko nëbb wa akbaru minhu waaye nag boobu li muy bon bon yëpp am na bu ko gën a bon de boobu mooy ban jaaxilul mutanassikun jaaxil boo xam ne dafa farlu lool ci jaamu yàlla hmm. mu ne huma fitnatun azimatun fil aalamiina loolu day ñaar yooyu ma wax léegi ay fitna yu mag a mag a mag la ci alam bi yaani ci julit ni rawatina liman ñewal ka nga xamne ya yata massaku fay japp ci ñaar yoyu fi eh, bihima ci ñaar yoyu fi diine ci diine muni li yakute bu maga magla fasadun kabirun yakude bu maga maga magla mel dañ ko laaj mag yoyu ngay wax lan la mu ne benn bi de mooy aalimun mutahattikun borom xam-xam boo xam ne ku ñemee def lu bon la te ba pare sax des fois du ko nëbb zaanu faasi xadar ñu ne ko aha mu ne waaye nag daf leen dànk waa akbaru minhu am na bu ko gën a bon nag bu ko gën a màgg ci bon ñu ne ko boobu ban la mu ne jaahilun mutanassikun mooy jaahil koo xam ne jàngut ba pare sawar yaram bi sawar daal mu actif masalan ñu ne ko moom masalan ñu ne ko tawaaf day moom ñetti yoon la moom mu ne xee ñetti yoon dafa tuuti man damaa sawar de bàyyil man ma farlu mu daw ko fukki yoon te ñetti yoon lañ ko wax mooy toujours kuy ëppal jàpp cawarte mooy jaamu yàlla jaamu yàlla xam-xam xam nuñ koy jaamu moo ci jiitu li may faral di nettali rek am na benn anecdote ñu ànd ak benn kilifa mu jaar Kaolack bu ma tudd turam waaye dafa am saxaar su bari ne xool dafa allergie léegi nag bi mu bi mu duggsee ci kër gi ñu ngi doon jaale bi mu duggsee ci kër gi toog boroom kër gi sawar lool sawar nag kontaan sawar dem indi andi cuuraay bi taal ko ba saal bi saxaar si fees dell ci sa ci saal bi moom mu ngi jàpp ni wan wane na cawarte mu ngi mu ngi gërëmloo kilifa bi te fekk na loolu mu def arrangé kilifa gi xam nga loolu mooy bëgg a bégloo nit ba faf lor ko te yow amaan na yéene bu rafet nga ci amoon de waaye ñàkk xam mm, mun nga la mun na la def loolu loo xam ne warakoon def jàpp yaa ngi koy dimbali fekk yaa ngi koy lor waaw wala nit koo xam ne buggul kaani nga toggal ko nga ni xëy xaaral ma defal ko ci kaani ngir kii bi gën a am caf ka kooku boo ko toggalee itam day force lekk rek loolu moo tax réer lépp lu mu jiitu rek. daanaka fi mu mujjee du neex yàlla tabaaraka wa taala wala du neex waaj ci boppam ki koy def mhm. kon ñu tëje foofu incha allah ba beneen dars bii di ñëw bunt bi nag bunt bu am solo la ñu ngi yem tey fu muy wax ni fasaadun kabirun lii day yàqute bu mag la bu xew ñu ne ko ban ak ban la mu ne aalimul mutaxatikun boroom xam boo xam ne dafa saay-saay ndax lépp lu def dañ naan xay yow gisoo diw def na ko te diw ak jàng boroom xam-xam la kon kooku pour mu influencer nit ñi di ñi topp ko ci lu bon boobu day yomb parce dañu jàpp ne lu mu def rek am na dalil bu tax mu def ko loolu moo tax boroom xam-xam yi nañu ragal yàlla ci jaamu yàlla yi mu ne waaye nag boobu li muy bon bon yëpp day waa akbaru minhu jaahilun nasikun bi ku gën a bon mooy jaahil boo xam ne xamut ba pare bëgg naa def kooku dafay tâtonner rek mun na def def sax ba faf def lu ko yóbbu safara te moom mu ngi ci jubloon rek ne xaaral ma def lu neex yàlla waaye li mu def noonu bokk na ci li yàlla gën bañ Mhm. masalan nga ni yàlla de moom xaaral ma kontaan loo ko jaamu yàlla waaye nga ne comme yàlla dafa bëgg yenentu bi bëgg ko lool léegi nag xaaral ma def li gën a neex yàlla mooy xaaral fa ma jaamuwaale yenentu bi sax dañ naa ne déedéet yenentu bi kenn du ko jaamu <laughs> yenentu bi dañ koy topp mu orienté ñu nu ñu jaamoo yàlla waaye kenn du jàmb yonent bi yow nag bu fekkee da nga bëgg lu neex yàlla ba nga ne xaara soppeem bi daal moom comme moom yonent bi la gën a bëgg xaara foofu sax ma def yeneentu bi yàlla di ko jaamaale benn yoon pour gën a am tiyaaba dañ naa ne déedéet kenn du ko def yonent bi da koy roy rek ci mbaax euh, waaye nag doo ko jaamu yàlla rek la ñuy mu ne ñaar yooyu ma wax ñoom ñaar de ay fitna yu mag lañu ci képp koo xam ne ñaar yooyu ngay royee sa diine xuma ñoom ñaar fitnatun ay fitna la xam ne azimatun yu màgg fil aalamiina ci aalam bi ci ñan la gën a bon nag li man neel ka nga xam ne bi ximaa ci ñaar ñooñu yatamassaku lay jàppee diin yi diinem koo xam ne yow jàngoo dangaa mel ni man rek te dafa benn effort pour xam yow daal dangay ngay toog rek gis ni diw def na he diw boroom xam-xam la xaaral ma def man tamit déedéet mun na am moom ak caay-caay ko ci dugal wala nga ne diw ak dëdd àdduna diw jàmbaar la waaye leer na leer yàlla diw boobu xamul dara jaaxil la soo ko royee ci jëfam mun naa muy jëf-jëf yoo xam ne yàlla gërëmu ko waaye moom ku mu rafet na ci xelam rek mu jàpp daal war na neex yàlla kon yàlla na yàlla jubal te te aar te may ñu yéene bu rafet nangul ñu jaamu yàlla baal ñu rëcc rëcce yi te may ñu cawat ak jàng xam suñu diine ngir am ci ngër de yàlla ngir jëlee suñu bopp ci réer jëlee itam nit ñi ci réer waaye itam am ci muccuk àdduna ak àllaaxira ci barke yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam waaye itam ngir lislaam dese ci suñu loxo li nga xam ne yonent bi indi na ko ak saxaaba yi ak nit ñu baax ñi mu bañ a sànkoo ci ñun allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim mbokk mi gannaaw bi nga seetaane vidéo ba pare ñu lay ñaan nga bës fii ñu bind jëm fekkee gande bi nag bësal après nga activer cloche bii nii mën nga tamit wax sa xalaat yii nii si commentaire yi lii nag doo ci fay dara te dina tax jot